mboolem koo xamante ni yaa ngi li nga xamante ni moom mooy AG Pro ci émission bu mag bii nga xamante ni mooy xurunaar xurunaar nag naka noonu du bàyyi dara mboolem loo xamante ni xaw na ci réew mi rek xurunaar daal dina ko teg ci eh, li nga xamante ni moom mooy kanamu askan wi nu fas yéenee ko eh, jànkonte ngeen xam ni nag fan yi eh, tubaarkàlla dañuy dalal gan yu am solo tey nag ma am gan goo xamante ni kenn dootu ko présenté ci àddina mm-hmm. muy imam grand as mhm. di koo xamante ni xam-xamam ñëpp ràññee nañ ko ci eh, réew mi mhm. imam maa ngi lay bàyyi nga nuyu euh, caxte ñu ngi lay nuyu di la siyaar di la béggee bu baax yow tamit mhm. waa di béggee ñi nga xamante ni ñoo baaxoo dañu topp ci seen bii di leen wax ni kontaan nañ ci topp bi ngeen ñu topp lu ngeen gën a ñëw gën a awoon abonné ñu gën a jël ci kàttanu yàlla ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen siyaar jëre ngeen jëf eh, jërëjëf imam Euh, ci sunu question bu njëkk mu mel ni bi korite gi desee ñetti fan mhm. seetlu nañ ci góor ñii ci senegal mhm. ñu ci bari seeni tuñ dafa xees mhm. danoo maanaam daal jàpp seen tuñ yi di rocci di xeesal lu ne dugg ci loolee bëgg naa nga leeral ci ndax góor war naa rocci ay tuñam euh, cafta góor bu ñu nee góor la daa war a def mbiru góor mbiru góor waaye jàpp say tuñ rocc ko muy mel ni taati xale mm-hmm. loolu dara jaru ko mm-hmm. loolu dara jaru ko gis nga góor mm-hmm. dafa am lu ñu koy nawe man ku ñëw sama kër di ma jaay der bu liis ak tuñ mu rocc soobee yàlla ca xaj nga jëm ndax fi ne bari na góor ñoo xam ni euh, xooluñu lu seen mbay manqué wala lu seen baay manqué ñoom ni ngi xool lu ñuy jaaye taar ak yooyu te amul njariñ mm-hmm. ñooñ dañ leen war a jàpp dëgg seen xoon wallaay dëgg seen xoon bu baax a baax ñaf leen ba nu ñafu wallaay mm-hmm. looloo jaadu ci ñoom mm-hmm. loolu baaxul baaxul Mm-hmm. ah mu mel ni yéen góor ñi nga xamante ni mm-hmm. yéen a ngi jël li nga xamante ni mooy seen tuñ yi di ko rocc mm-hmm. imaam nee na loolu bu baaxut dañ leen a war a jàpp dëgg seen xool te loolee dama ci ànd ak yow ndax réew mi faaw nu tegaat ko ci yoon imaam gone yi xam ni góor góor la mën a doon boo rombee góor nag dem ca leneen ak ngóor jigéen day daal di taxaw dëkk ba toj te ngóor jigéen cim réew baaxul baaxul day delloo ginnaaw réew. benn pombiteer bu nëb. Mm. day yàq saaku pombiteer. dëgg la ndax bu ñuy wax dañ naan góor jigéen yo mm-hmm. te xam nga ne loolu maar day taal yi. wallaay maar day taal yi. wallaay waaw góor daal nañ def yëfi góor. Mm-hmm. ñiy jigéen di def yëfi jigéen. Mm-hmm. ndax rocc say tuñ moom. nit mënta wax a wax te loolu daa rafetul. yow nga ñuul kukk seen tuñ xonq cooyu. wallaay. ah loolu mooy lan. Ah, doy na war de dundu mala yooyu nan ko ba. te xam ne ay góor lan góor day dëgër këcc. Ah, waaw waaw dóor dëgër këcc te di leen koy teg xaaj bi yépp mooy seen gel yi mm. seen gel yi bébé mm. war a boo mm. da war a jantal xam nga bébé nekk ci àll bi def yëfu yambar di rocc ay tuñ buñ ko buñ doon woowee góor ñi ay gën ay gën ay xeeru raay wallaay hmm? ay waaw mooy taatu cin. taatu cin. yooyu lañ war di woowee góor ñi. wallaay bu góor ñi dëgër këcc. wallaay mais eh, bébé. Mhm. but but ay doonam yambar di. sama aljana te yaa ngi ci safara. waaw waaw nu ne la leen di wax. moo tax man la am na ñoo xam dëkk seen xon jot na. ah wallaay. waaw ah, jot na. léegi nag a ah, joxe na ci leeral bu am solo. Mhm. si suñu deuxième point bi. Mhm. muy awra awra. ci réew mii nu toll. daa mel ni dañu koo xaw ñàkkal fayda. ndax xale yi jigéen ñi seet nañ ci ñu ci bari léegi mm-hmm. dañuy tëju ci appartement yi mm-hmm. def lu bon la def filmer ko di ko jox askan wi loolee loo ci loo ciy wax euh, kooku capta mm-hmm. dama ciy futteeku futteeku takk sama ndigg mën cee waxtaan ak yow. wallaay dëgg man mii tee maa futteeku ndax nag ne. Euh, mënees na ñoo jàkkaarloog ñoom. dañuy wax ñaari baat. awra du lees di nit di fawe. wallaay dëgg la. awra mhm. dañ koo war a ponk ndax li nëbbu ci nit mhm. boo demee ba ni ko fàng teg ko ci digg nit ñi wallaay sutura amatul amatul te bu fekkee da ngaa futteekoo fee mhm. xaw wi nga sunu sutura ñun ñii góor ñi ndax nag noonu roole wallaay ñun ñëpp <laughs> noonu roole ñii danoo fay cinq mille waaw ñii fay sept mille waaw waaye ki fay cinq mille ak ki fay cinq mille yëpp ñoo yem mënoo koo xàmmee dagg dagg la rek dagg la léegi sa bos nëbbu sama bos nëbbu. Mhm. benn wëndëng dem génne ko fee ñu xam ni. wallaay nii la. nii la mel nan na suturaal. nan na suturaal maanaam góor ñenn ni nun noonu noonu noo commencé yàq sunu der dégg nga dung xam nga dung. te nag taat munoo wax a wax ba mu rafet. nu muy rafetee aw taata ñaaw. yow ñuul ko cëpp ba pare nu la koy wan bu dégg bëccëg nanu nu may jàmm. boo demee bay def sa njombe. tëjul sa néeg te def sa njombe mais yoonu téléphone nekku fa wallaay ngeen génne awra yi saam ko ci dëkk bi mhm. mu mel ni saam fukk saam juróom saam fukk ak juróom mhm. te la ma ca metti mooy dañu koy defee nag export ko mu ñëw Thiès. waaw ñiy defee Thiès exporté mu ñëw Mbour. na nekk Mbour exporté mu ñëw Tëngéej ña nekk Tëngéej exporté mu dem Géejawaay waaw léegi lii comme ginnaaw dañ koy exporté nag nun jël nañ ci suñuy matuwaay. waaw waaw lan mun na bëri awra yi. Mhm. lin laay ko mhm. rasuul. baanu noq leen. Um, waaw déet balan jëm ak ñoom. dañ leen di noq sax. balan jëm ak ñoom te li ci gën a mm, doy waar mooy léegi aari seetu nu awra yi de dañu koy live direct ñu lan la koy def. live waaw. dan la koy live fal naan la. Hmm, àgg nañ foofu live awra mu nga ca live ba fi mu toll ah loolu du dëgg du yoon. dëkk bi toj na. a romb na dëkk bi toj na danoo waroon nag ku fi génne sa awra di ko live. waaw ñu ñuus la ba nga duul. Mm-hmm. nga xam ni fii réewu jullit la. Ah, réewu lislaam la kuy toj sa bopp ji nag. Mm-hmm. xam nga fa ngay jaar ba toj. ko mais bul ñu tojal ñun. <laughs> ah waaw nun góor ñi moom ah nun góor ñi gore. xam nga xam sunu bopp waaw. yow xam nga ne réew mii nu nekk Sénégal nit dama fee gën a ah baax la aw. non yow moom wenn awra nga yor dëkk yow saw awra wenn façon la. te sama bos am melo am tur. waaw ah Thomson John Dodos bi daay mel wala boog borom bi yaa minti color bu ma neexoon ma produire ko wane ko comme nin ko wane. dëgg la ah nanu bàyyi lii nun gënu nunoo bëgg li ñuy def baaxut neexut. bis boobu ah capta neex na nag. Hmm? loolu moom du ma ci ànd ak yow. baaxut mën naa ci ànd ak yow lu koy tere ah, ah. baaxut neex na nga war a wax ah, wax day neex na waaye nanu ci am ngor loolooy wax ji nag waaw fi ne boo génne woon sa bos wane hmm. kenn dootul wax bosam wallaay ndax sa couleur yu bari wallaay xanaa xamoo ni turu cafta gi fa la jóge cafta wallaay man noo yow yow jàmbaar nga waaw yow li saw awra di dijj dijj di muy dëgër dëgër taxul nga wane ko gor noonu lay mel waaw gor noonu lay mel bul xool ni baax la naa rek damay génn sàmm dama di nitu sutura am na loo xamante ni jommale naa ko sama bopp dëgg la ñaari gor sukkee jur mm-hmm. nga judd ñetteel leen mm-hmm. daa am noo war a tax dëgg la dëgg la dëgg la Sénégal fii mu toll nag il faut que nun nuy wàcc ak ñoom ba toll ci niveau bi nu toll nuy waxee ak ñoom foofu xam nga ne di dëgëral dëkk bi est-ce que la. Hmm. yow da taal sa téléphone war a xool dara fekk fa ay awra. wallaahi nga umu. dëgg de. ndax xëy di jàkkaarloog ay awra du def lu dul um la. mbaa yëg nga ne mooy revue de presse wu réew mi fi mu toll nii awra. loolu la ñuy waxtaanee. bu nu lancé revue de presse bi rek awra la. awra. ah eh, xaw ma ay awrisme lañ xaw ma nu mu demee noonu. ay awrisme. xam naa ne ay awrisme lañ mujjee. wala awrayen. awrayen awrayen ak awrisme. ku ko ci defati nag ci miim réew. dëgg sa xool da nga ci jël say matuwaay. ñuus la ba nga dul. mbokk yi mu ngi noonu. ngeen amoon li nga xamante ni moom mooy seen émission. Mm-hmm. xuuru naa. Mm-hmm. Ah, tey nu dalaloon ki nga xamante ni tubaarkaar la. Mm-hmm. xam-xam bi daa yaatu ci awra. dëgg la ko décortiquer xam li ci askan wi te ko jox askan wi. la euh, am jàmm te kum ñu yàlla defal jàmm. yàlla musal ñu ci lakk ak lab ak accident police ak tribunal ak gendarmerie ak deegu ñaaw. defal nu xaas ab xaalis santé santé sonné Sénélec siam science sikkar dukkat ba àjjana. loolu la laaj. dukkat dukkat yi nanu ko dukkat dukkatee ñun ñëpp àjjana itaate dëgg la aja mu ngi noonu nu def ñaan itaate weer wu dee itaatu ci kanam bi dëgg la yaa